asalaamaaleykum mbokk yi tàmm di seetaan seen site mourides point info ñoo dellu si di leen euh, jaajëfal bu baax a baax ginnaaw bu ñu nuyoo di ziar sëriñ Mountakha Bachir euh, di ñaan yàlla ak sëriñ Tuubaa yàggal ko fi ba mu eggale ay yéeneem comme nam ko bëgg. mbokk yi tey dañoo ñëw indi ab taxaw seetlu ndax ci juróom-ñetti weer yi ñu romb nii am na lu fi jotoon a xew ba indi woon ay yëngu-yëngu ci dëkk bi ci la. Serigne Bachirou Mbacke Abdou Khadre porte-parole de la confrérie Mouride ci tarixa yoonu Mouride génnoon yëkkate ay kaddu ci ndigalal sëriñ Touba Serigne Sidi Mokhtar kon mbokk yi ñu ànd déglu kàddu yooyu. ñu ñëwaat fii nag ci ndigalul Serigne Touba ak Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem naal yi nga xam ne am na ko ci. liggéeyal Sëriñ Tuubaa am ko ci liggéeyal lislaam lépp suñu borom may ko kàttan ak wér ba mottali ko ni mu ko bëggee ci barkeb Sëriñ Tuubaa ñu ñëw fi ci ndigalam ngir jot leen ay kàddu yu gàtt yoo xam ne mu ngi jëm ci ay fànn yu ba bariwut ndax am na ci loo xam ne ba dañ ko wax dañuy bàyyi ba safar bi dugg ci ni mu ko joxee ndigal ba mu yëkkati ay kàddu ni mu ko baaxoo ak wax liñ ci war a def kàddu yi nag tey li ko waral mooy sant nit ñi ci ndigal li nga xam ne joxoon na ko ñu war dëkk bi di taxawu di maire bi Abdoul Ahad ak ñu mu ko àndal ngir ñu seetal mbedd yi bi mu leen ci joxee ndigal itam xamoon na ne taalibe Serigne Touba ndigal moo leen gënal lu mën a doon ñëpp itam ànd ci ak nongu ak xam ne ñoom rek lay defaral ndax mbedd yi am na ci yoo xam ne sax sëriñ mën na caa bañ a jaar waaye bu ngeen bëggee lépp mu bëgg mu dëkk bi mooy bëgg a defaral nit ñi ndax Cheikh Mouhamadul Fadil bi nga xamee ne mi ngi natt dëkk bi loolu la waxoon dafa waxoon ne. wala yi dañuy wax ne xoddiku ci ba nga lekk léegut mu ne fii nag Serigne Touba fàggu ko ba loolu du fi am waaye nag suñ doon dafa sant jàmm bi muy sabablu booba itam ba mu ko santee sëriñ Cheikh Gaynde ma mu ànd ko Baye Fall yi jiital leen ci xam ngeen ni eh, yéen ngeen taxawaay bañ ci defoon Serigne Fall dañoo leen tàmbalee ci këru boppam bi ñu xaaj ko dagg ko kon mboolem jabaru Serigne Touba gi itam. ak taalibe ak seex seex bokk yépp noonu lañ ko nangoon xam ne ak defar la loolee nag bu amutoon tey Tuubaa mbedd yi nii mel du ni mën a mel kon loolu rek lañ jubli ci defar gi ba ci sëriñ Abdou Lahad Mbacké xam ngeen ne bi mu natt dëkk bi ak di ko moderniser ngir mu méngoog jamono yépp jubluwu ci woon lu weesu mu mën a jariñ nit ñi ak nit ñi ci dëkk sëriñ Saliou itam ku ne xam na ne joxewoon na ci ndigal bañ dindi woon fi lu bari te loolee bu amutoon kon dëkk bi tey mbedd yu bari sakk na ndax ca la ko jëkk demoon na ba ay mbedd yu mag yoo xam ne kenn mënatu faa am na ci yoo xam ba fi ne sax mujjuñ ko mën a dindi ndax nit ñi dëkk nañ ko ta yërmaande ñoom seen yërmaande dafa ëpp dafa jiitu ba ëpp moo tax ndax xam gi xam nit ñi tumuraanke gi ak néew doole gi ak yaakaar ji leen indi Tuubaa ngir fiir firndeel la Serigne Touba waxoon ne dëkk bi koo fi sam xel indiwul ko ne saw xel dana la fi indi am na ci ñoo xam dañoo néew doole loolu lañu sédd moo tax yi ci ëpp mujjuñ ko mën a dindi dindi ak Cheikh Sidi daaw loo ko njëkkoon joxe waaye bi koy dindi itam tàmbali màggal gi agsi tax mujjul sotti bari ji moo tax ñu jiital ko ci màgget gi mu tàmbali te fexe nii nit ñi di ko sàmm te xam ne lépp seen njariñ rekk la ci jublu ginnaaw bi ñu dégloo kàddu yooyu ba pare mbokk yi ñu ànd seetaan vidéo bi nga xam ne que moo ñuy fàttali li fi xewoon ci juróom-ñetti weer yooyu ci ndigal loolu ñu joxe woon te ñi ko doon exécuté ñu gisoon ne amut benn décret wala benn arrêté bu nga xam ne que ni génnee na mairie muy commune bi nga xam ne que moom lañ dénk ngir mu saytu Touba ngir que ñu mën a appliquer loolu waaye loolu amaana ndigal la kon décret ba du ñu amal solo. waye gis nañ ne bañ koy jëfé gisoon nañ ci yaq gu metté metté metté metti ci vidéo bi ñu sétan tamit bu ngeen sétlo bu baaxa baaxa baax da ngeen gis ne amna ci ay casque yoo xam ne wala ay mbar yu ci buntu place yi ñi doon yëngutu di sàkku sakku andi andiwul leen fi ndax seen penc yi maam amul Serigne Touba ci dëkk bi diko xéñtu ngir sakku fi teranga juñ mëna yoré yore seen bop mëna a joxe addiya ci liggéeyu Serigne Touba bi kon mbokk yi nañ ko and tewlu vidéo bobu yëkkati gi nga xam ne nii ñoo ngi ko doon yëkkati lépp loo xam ne nii muy kanting wala taabal wala garage wala lu mu mën a doon te jege tëli bi te ñu tàmbale woon ko ci suba ci garage daaru muxti moom kat wéyal na ay jéegoom ngoon ak tey gii nag diggante Madiana ca mbaar ya jàpp corniche xumboon na lool képp ku jàppoon ne yëkkati bi wala déguerpissement bi dafa yem rekk ci taabal yi kanting yi wala garage yi am nga metteel ñi nga xam ne nii seeni kër wala seeni i place dafa am mbaar wala ay fleurs yoo xam ne nii dafa génn ci tali bi ñoom kat démb am nañu mbetteel lool ndax jëlee nañ ko fa mu nekk mbir moo xamante ne nii yéen a ko gisandoo nii. bi ñu xëyee ak léegi nag nemmeekoo ñu benn yoon ab jàppante diggante takk der yi ak askan wi nga xam ne nii ñoom la yetu dal ci seen kaw waaye tëriwut benn yoon nag askan wi fësal seenu naqar ñenn ñi sax dem nañu bay jooy ñenn ñi di yëkkati ay kàddu bay wax naan mbir mi bu fekkee ne nii ak defar la. ak yàq moo ci ëpp ndax bu fekkee itam ne déguerpissement bi ndigal sëriñ bi la ndax sëriñ bi wax na leen ñu ñu yàq alali jàmbur loolu dégg nañ ko itam ci ñi nga xam ne nii ñoom la yettu dal ci seen kaw waaye lu ci mën a am ñi nga xam ne nii mbir mi dal na leen fësal nañ seenu naqar ci ay jooy wala ay jëf yoo xamante ni ku leen gis rek xam ne am nañu njàqare kon yéen a ko gisandoo nii li ci des nag nekkul lu ñuy commenté yéen a koy gis en sëriñ faqir dafay nangu dagaan nangu lépp luñ la ñaan ndax yàlla naatel xernu bi sariñ bi nongu deeti ñaan faqir dafay nangu dagaan nangu lépp luñ la ñaan ndax yàlla naatel xernu bi nongu dagaan nag ci Mustapha mi nekk Marwata ak Safa ak aqi am di Mustapha ni yàlla jébbal xernu bi ak àqi mboolem ay rakam ak àqi seen baayi ñu am ak àqi seexi bambaam sëriñ bi jeexul xernu bi mbàkke da ngay borom mi boot te sa njaboot tawat giloot ñu dem ab antal palet may la wa ak xernu bi. ah mama, mama dilawa. murit yi ñoo ma waana tawatal te bunu woo yow la meñe yow xarnu bi tey ji ma wax bane tareet ngir yaa ma def antal pareet yaa ba bi xam-xam ne yëreet ci sama xel ci xarnu bi te bul ma tangam ci ñaan ngir lii ma bon tey ku ñaan murit yi ko ñaan ngir ba dekkal xarnu bi jooy perantal lanu jooy boonu fabul leenu ne wooy kunu yafal ban defi kuuy mu delu naatal xarnu bi gisunu yaay te noongu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural te boonnu ngala daam roggu ni mboolem xarnu bi fabal sa doomi yépp boon ñoomit ñu boor seenu njaboot ku mun te boon nga jox ko xarnu bi ji ñu naal foo tollu dollu seen alaal dax yàlla na atel xer bi ndax yàlla am di Mustafa tabax jumaa yi Mustafa bam tale saba ndax yàlla na atel xer bi mbaale murid yëpp ngi jooy ngir lu yu bay mu dalli gooy ba seeni addiyaa ngi booy sarax nu naatal xer bi jamono jaa ngi xiif a xiif luñ togg bar gi nekk fuuf Cheikh Bamba neel gën ci mbindeef mu dellu naatal xarnu bi xiif tax na ñenn mag ñi yooy xiif tax na gor su ndaw di jooy xiif tax na yenn tool yi booy sëriñ bi giyaasul xarnu bi tax na ñi daa joxe ngi laaj ñii jàpp seeni sas di xaaj kenn dootu dem fenn ba waaj sëriñ bi giyaasul xarnu bi bekkoor bi tax na xol yi tiit bakaar bi tax na cër yi gi tax na kër sëriñ bi giyaasul xarnu bi sa dem gi tax na ñepp jooy nawi di sax dootuñu tooy léeg-léeg mu war ba tooli gooy sëriñ bi giyaasul xarnu bi xam na ne yaanu daanu bayal daanu ñolal daanu roñal daanu dëggal feesal nga sàqi xarnu bi sa yërmandeenu daa defal lu xel daanu fabal daanu tibal daanu leel ragal nga mboolem xarnu bi si yërmande yaanu daa sanal jigéen yaanu daa amal tey ñeppayam kenn amatul sëriñ bi giyaadul xarnu bi ñu seeni kuna ñii seeni daay kuna ñii seeni kuna ngir ñàkk gi ci xarnu bi at moona ndax mu tana daaw mu gën a far dellu gannaaw bara bi ay cheikh dinaaw ay mbakke giyaadul xarnu bi wóyno wóynoo ka torax yalwaan amoo ku garab bu xob yalax bambaay ndanjaama xarnu bi garab gu mag bu jirim garabi ndaw jirim meññan ma say mbir ma alem lii rekk waa xarnu bi allahu akbaru shamaan jamana moo mën a def da awala ngaan ci dabi mbooleb xarnu bi libeeg si keeki sax faraan landaa di woo muy yorangaani xelli koppi dinaam wa tey kor ni xarnu bi astaxfirullah al asim tuum nan lan daa defi ko te muy lu neexuloon borom jur be la wuutee bi xeewal gi def daa walwali baban ci di kel-keli tax ma jóg di pel-peli bi jaadu xarnu bi xeewal gu def daa wala ngaam wax nga wuute nga ak sa yaam xamoo xurak tund ak say am sam doxa mandal xernu bi wàcc nga yow lu ama sawax def nga ko jox ku mata jox daawoonu nax daawoonu ñaax se doon nga mboolem xernu bi gàncax gu ndaw gi weddatul mag ñu nga yaar kenn moo tax manaa la sooxatal njëmbat li woon ci xernu bi njëmbat lii mooy gaay ñëwoon daawe ci xéewali fi woon tey ñi def ya ñu bawoon gi ñàkk gi ci xernu bi ak ñàkka bon ci waaju baax day tas këram xolam bi jaax daa ceebu te ngi añe laax jaaxal na mboolem xarnu bi léeg-léeg nga gis fii am murit muy taxawaalu ne meriit wala mu xaj ci def teriit ndaw njombe gaayi xarnu bi ànd ak commerçant di jaay ñii ba jaa seeri ba xaay te xam ne yaa doon sunu baay ma tee naatal xarnu bi ñi leen defi seef ñii defi dag ngir bañ loof ñii daw baraw beeli fii ma tee nga naatal xarnu bi yàlla yaakaar abada ngir yaanu tàggaleeg bi daa tuum nanu mboole ndanu daan bakkaar jëkkee ji xarnu bi soon yoram nu tey yaru nanu dootu nu foog xammi nanu dootu nelaw yew nanu yaram nu naatal xarnu bi soonu joxoon la lanu yoroon dootu nu def nanu defoon xanaa yëgoon yaru nanu ku weddi xër nu bee yaram lu nanu toroxlu nanu jooy nanu ren saraxtu nanu jébbul nanu soppiku nanu sarax nu naatal xër nu bi nun tuxu nun sun këri baay gaddaay def sunu baay tuubaa kër bambaa waay sëriñ bi jeesul xër nu bi murit yi nañu ren ngir xam na yaa leen amewoon joxoon lañ yoroon yóbb nga booti xarnu bi tijaani eh, yecci nañu tey xam nañ ne bay du suuru boy yaa man a may lu ko doy ma tee nga naatal xarnu bi eh. bawal bawal jolof jolof mboolem pëlëg naar ak wolof kéendil ku am yëf sëriñ bi jaalul xarnu bi koo xam ne daana xami jaak daa mi nga joog mi aan maam deen mu jeeg sëriñ bi jaalul xarnu bi ku masa am yaari wata soxla na ren ñaari mata te muntaam njëgu mata sëriñ bi geesul xarnu be koo xam ne daana ami taax tey mi ngeeju ne baax bu gën feex bam na ca faax sëriñ bi geesul xarnu bi koo xam ne daana ami taax tey mi ngeeju ne baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi geesul xarnu bi kër weet ba ne cundung lal yañ yoroon de bi korong ña dooni wuur de bi koyong sëriñ bi geesul xarnu bi tubaab yi sax perte nañu ñi leen gamoon it peri nañu yaawooti it fayi nañu yàlla nañu yées ci xarnu bi ña tukki far nañu lang fu njublu dee seen falang àdduna yaa kanoo weleng sëriñ bi geesul xarnu bi naar yaa ngi yalwaan ak a xaar seex buñ xamoon nag dellu fa jaar kenn talatu loo joxi naar waaye mbàkke geesul xarnu bee waaye mbàkke yuuxu ba dee wallunu soo yeexeenu dee melal na kuy ramu ku dee yaa ni tinil waa xarnu bi yow yaay danay muhammadu teer nga sharab amidu teer nga booti ahmedu man nga defar waa xarnu dee man nga defar bi teeki biir defar nga baadooloo ke boor yaa dindi asra baag di deer càkk murit yi xarnu bi man nga kanam man sa ganaaw loo sant yàlla mu ne waaw loo ax fa diiwaan ñu ne waaw wax leen ñu naatal xarnu bi Chambir appaate na ak dërëm na xarnu bépp am ngërëm te am dërëm te yokku gëm nga may njariñ waa xarnu bee ma leebu gaañ la xamul waaju xamul des koy xamal subaana yaa kamat kumal yaa neexawan waa xarnu bi nan far wañu ko tagg daam ngir moonu may lu ma am boole muy dew di daam ak canta war waa xarnu bi Bamba mu ne misaal yaay géej gi wër waa Sénégal kenn du la genn gaal Seydou sa xarnu bi Seex Bamba yaa di mbambulaan ku soobu dootu ñaani naan ku mande dey di mbaane teen say kaasa mandal xarnu bi ku soobu gennaaley dërëm bekkoor bi dootu dem këram ku ne kaasum ngërëm du mar des ci xarnu bi géeju ikkam gim daa bana ko secc moog ñoñom masiya bu ko nandal ko xam toqen bi doy na xarnu bi luum lu woona foore raam loona kange mi fi wan daanu ne bari fi ne on niroom amul ci xarnu bi sorob andaari xam-xamam masiya bu caana tel wujëm ayam nga suura na ñooñu wujëm amul ci xarnu bi jërë ngeen jëf kon mbokk yi taxaw seetlu bi nag li tax ñu indi ko mooy ne dañoo gisaat ci jamono ji bu ngeen xoolee bu baax ci vidéo bi amna ci ay lima ko waxee woon ay place wala ay casque yu nga xamne ne won ci ay bunti kër wala ay mbar yu ne woon ci ay buntu place yu nga xamne ne digganteem ak mbedd mi wala digganteem ak li ñu wax ne mooy mbedd mi matut ñaari mètre ñu yaq ko ci lu nga xamne jaxalon na ñëpp tay dañu delu ci wat gis ne ka yoyu noonu ñi ngi koy jaay manam kep ku ko bëgg man nga ko am ci nga fay ben mètre carré bu nek ñaar témèr té li ñuy wax ni du lu ñuy làmbut wala lu ñuy inventé dinañ leen won facture yi nga xamné ka ñi nga xamné jot nañu fay ba paré am nañ ko té moy li ngeen di gis ni ci ci vidéo bi benen bi tamit moy ci li nga xamné mo aju ci bir marché Ocass ak li nga xamné moy wër ci ci marché bi japp 28 jëm nonu gis nañ na ba tey tamit fofu un m cinquante lañ leen may ngir ñu mbar ko ci mbedd mi wala nga loo bëgg ta nga tek ko ci mbedd mi mais mètre carré bu nek 6000 lañ la koy jaayé ma ne an mbokk yi ndax ndigal li jiboon ba yëkkati li newoon ci mbedd yi nii dañoo soxla xar kanub taaru mbedd yi Touba ndax leneen ndigal dafa jóg mbokk yi ñu am beneen laaj bu nga xam tamit da bëgg nañ ñu taxaw seetlu ci ndax déguerpissement boobu dafa nekkoon luñ mbubboo ngir ëllëg ñu am espace bu nga xam ne dañ koy jaay ngir am xaalis mbokk yi ñu ne ndax commune bi dañ koy bàyyi nii am ay ñetti nit wala ay ñeenti nit ñu nga xam ne que ñoom dañuy def lu leen neex te duñ ko waxtaan ak askan wi wala duñ ko waxtaan ak yeneen association yi wala yeneen kuréel yi nga xam ne que dañ fay nekk di fi yëngutu te lu jëm ci bu ñuy voté biir budget Touba ñu woo leen seq ak ñoom waxtaan mbokk yi ñu ne ndax lii xew ci dëkk bi ndax dina mën a continuer nii waaye laa ndax ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba Xaadim Rasoul war naa xoolaat bu baax a baax ñi muy dénk ab commune am kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal di xaar seen i xalaat ak seen i gis-gis ci lii nga xam ne moo xew Touba actuellement jaa ngeen jëf.